lu xew TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér wóor. baax noo def yaa ngi si naa la de waa affaire bi man la woon léegi ci YouTube bi. léegi tubaab bi dama ko daf ma demandé woon ami Facebook ma agité ko heure bi daaw la woon nag bi ñu doog a korité xam naa ay un mois après korité la woon ñuy waxtaan ma nag moom ñuy waxtaan ñuy waxtaan euh, benn jour ñaari fan rek lañ waxtaan mu daal may laaj sama numéro man maa ko laaj si numéro war am mu jox ma numéro WhatsApp am ñuy waxtaan ci WhatsApp bi waxtaan ci WhatsApp bi bindante di bindante mu wax ma ma ne ko man dégguma français bu bindee ma tontu ko mu bind ma tontu ma ne ko li ma bindu baaxul mu ne ma comprendre naa ñuy waxtaan man ak moom ba yàgg mu ne ma man parking laa yor parking oto mu ma moom la yor France am na ko sax Afrique yu bari ñoom seen famille dañoo am xaalis di ma dóor ma teel a jëli nag comprendre ko ma continuer ci jeu man ak moom ma continuer ci jeu man ak moom mu may nax ma koy nax xam naa daf ma doon jéem nax waaye man dama ko doon fowee. ndax man yàlla def na Facebook moom man loolu laa si doon loolu laa lu ci bari ñu ci bari dama doon toog benn saa rek man xaaral ma xoolaat ñi nga xam ne ay arnaqueur lañu waa ji man ak moom man ak moom man ak moom ba ba ne ma léegi est-ce que yow mën ngaa yor parking ma ne ko non man mënu maa yor man bëgg na maa yor parking mu ne loo jàng ma ne ko man jànguma de mu ne ma kon yow doo mën yor parking ndax Sénégal foofu bëgg naa fi parking mais ku ma ko gérer laa amul boo jàngoon ma jox la ko ma ne ko man tukki rek laa bëgg. yàlla xam na ne bëggumaa tukki dama ko doon foowee rek ndax xam dañoo gaaw ti boo ne leen damaa bëgg tukki rek ñu fas yéenee jaar sa kaw ndax man passeport sax xaw ma ko ni may gisee nii ndax man tukki moom waxuma si leen ma daan ne ma eh, léegi dama lay defar dinaa mën na maa fexe nga ñëw fii boo bëggee ndax sama xarit nga ma ne ko waaw dimbali ma si di ko di ko kii nag naan ay waay di ko message naan ko jàpp si c'est une de famille la noonu léegi mu mu mu ne ma dinaa si dinaa si jàpp mais. dama lay defar ay client jox envoyé la ko nga dem yóbbu ko ambassade ñu may la visa ma ne ko ay man dama amul passeport mu ne ma passeport ah faaw nga am passeport nag da ngay da ngay mu ne ma naa la jàppale nga am passeport Sénégal fii nii man xam ma kan la ñuy jàppale muy am passeport mu ne ma dama lay booleeg un certain Franck bu nekk Cameroun loolu la ma waxoon ne ma ambassade du Cameroun day liggéeyee mu ne ma sumala ma moom rek dina la defaral visa bi. dana defaral euh, passeport dana lijjanti kii ba dugal ko nga xam ne si yow yow du jar sax ngay dem bi ma waxee loolu mën ak moom ñuy dem mu ne ma léegi dinaa ko envoyé sa numéro bi euh, ci suba sax envoyé ma message ci guddi jot ma tëddaat yàgg rek ma envoyé ko message waaye yow da laay déglu fi ma ko waxee loolu matul sax trois minutes gars bi di envoyé ma message tak waa ji ñuul nii Cameroun bu ñaaw sax xaw ma Cameroun la xaw ma ñaaw na ñuul na. bàyyi euh, ma message ne ma yow la ma xaw ma kan doon wax ne ko wax man la la doon wax man dama fàtte turu tubaab bi amoon naa photo mag yëpp am photo yii ndaw si wane moom la waa ji la mu ne ma léegi nag xaw ma lan commencé bëgg ma laaj xaalis naan ma da xaw ma lan lan ma dugalal la kii bi ma waxee loolu ma ne ah man yéen ngeen bëgg maa jàppale man may man may waajoo xam ne aw ma dara pauvre la ngeen da ngeen maa bëgg jàppale ma leen jox xaalis man ma xaalis moo leen jox. mu ne ma léegi da ngay waxtaan ak euh, Franck boo waxtaanee moom rek dina dina dina la wax affaire yi ni mu demee nii ndax du yow lañ njëkk a man comprendre naa de xam naa ne dañ may dóor ndax man lépp lu ñuy wax ba tudd ci ñàkk moom bare naa si may dem ak moom di moom mu yàgg rek ma ma ndax man xamoon naa ne daf may dóor ma daal di koy bloqué bloqué tubaab bi tubaab bi di ma envoyé message fële euh, message ma bàyyi ko noonu mu naan ma ay. waa ji nee na mi ngi lay envoyé message jotula affaire yooyu nee na koo bloqué whatsapp ma ne ko ku baax man bëgguma tukki dama lay wax loo rek ma ne ko dama la doon seetlu kese man bëgguma tukki bëgguma tukki dama xamoon ne da ngeen may bëgg a arnaqué ma doon foog yéen depuis le début comprendre naa ne da ma doon ma doon bëgg a dóor waaye nag du jàll ndax man yàlla def na ne man damaa tiitut te boobu laa gëj a dégg tubaab bi. gisatuma ko sax euh, Facebook ba ni may tëjee sama Facebook gisatuma ko moo tax dañoo bari dañoo bari lool sax te nag Sénégal fii dafa bari ñu tiit lool te yomb nax lu ngeen mën ci jàpp ci rek jàpp leen ci jërëjëf waay